maa ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax amaat kontaan ak mbégte bu baax a baax ni ma ko faral di def ak sëriñ sépp tey nag ma fas yéene dalalaat beneen sëriñ di kàngam ñu koy tuddee sëriñ xaadim borom jinne yi ñu war a waxtaane ci lépp loo xam ne rek bokk na ci xam-xam jëmale ko ci jaamu yàlla yi nga xam ne saa su nekk ñu ngi koy seet si di fëgg buntu néegam nga am loo xam ne dina leen ko defal mu di tawféex bu baax a baax a baax sëriñ xaadim dañuy bàyyi ko nuyoo mbokk internet bu 221 people bismillah saddi lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraayi barki borom Tuubaa ñu ngi nuyu képp ku ñuy seetaan ci àdduna bi ak ci biir réew ak bitim réew di leen baalu àq di leen jéggul di ñaan mbas mi nga xamante ne moom suñ borom teg na ko fi suñ borom jëlee ko fi ci barkeb alxuraan ci barkeb mag ñu baax ñi di nuyu xalifa général kulli murid di Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan sa boroom guddal fanam lool di siyaar sama buntu ci sëñ Tuubaa mooy sëñ Moustapha moom Serigne Saliou di ñaan suñu borom guddal fanam. amiin bisimilah. amiin jërëjëf euh, Serigne Khadim borom jinne yi soo ma teelee micro yi mu jege la dina dina baax dina ci kontaan bu baax a baax. rek comme ni ma koy defee saa su nekk rek comme ni ma leen koy waxee tey di suñu première émission ak moom di ci biir site bi people daa am lu may dégg ñu koy waxtaane mu di lan mu di seet bu doy waar bi ngay def mu bëgg ñu del siwaat ci dañ ne seet moom ku bëgg seet bu wër rek demal seete kii di sëñ xaadim borom jinne yi nan ngay seete ak ci lan ngay seete waaw yàlla sa boroom dogal na ne seet moom bokk nañ ci ñu ko dàq ci réew mi buñ buñ ci mënul sax laay nañ ci ñu ko dàq wax nag tëbuñ tëb ko wax waxuñ ko ngir bëgg ku ñëw ci ñun waxuñ ko ngir bëgg ku ñu xam. Mhm. waxuñ ko tamit ngir bëgg ku jox dara. Mhm. ndax yaakaar naa du tey laa mos a feeñ cale du tey laa fi mujjee feeñ. Mhm. waaye nag yàlla saa borom def na ne xaali bi ko ku lu bokk nañ ci ñi ko dàq. nag ñun bëri nañ façon ci def. bu see nag moom fi ñu dañ koo baare ndax ñi jël dafa bari. waaw te listixaar mënoo xëy ne da ngay listixaar jëlandoo fukki nit wala ñaar fukki nit ñun ñeme yàlla googu nekkuñ ci. bu dee seet nag léegi léegi moom dañ koy def. Mm-hmm. te lu leer nañ lañ lay wax li sa kanam li sa ginnaaw nag xamuñu ci dara. Mm-hmm. waaye li sa kanam li ñu suñ borom wan dañ la ko wax. Mm-hmm. waaw seet nag léegi léegi dañ ko def am na ñoo xam te ñu ne bitim réew bu ñu bu ñu wooyee dañ lay seetal ci saasi. même pas fukki minute ak juróom wala trente minutes ñu leeral la ci lu bare bare. Mhm. ba ànd ak dogal yàlla. tarkaal jërëjëf sëñ Xaadim borom jinne yi am na solo ni ko leerale leer na nañ ponk boobu mais euh, ci kaw seet ñu bari suñ seexee seen tànk dem ci sëriñ seetlu dañuy bëgg leneen luñ ca namm dañu leen seetalee ba pare lu ci mel ni maanaam ñaan la lu bokk ci kaaraange lu bokk ci bayre ak yeneen ak yeneen dañu ñëw ci kaaraange bi ngay def jëmale ko ci jaamu yàlla yi ñu ciy waxtaanee. waaw man yàlla saa borom daa dogal ne maanaam kaaraange moom wërsëg yàlla saa borom moo ko joxe foo mën a ci àdduna feek deewoo wërsëg woo mën a am bu nekkoon ba kéeri koro tamit dana ñëw mhm. wërsëg moom damay wax biset ne daanaka jarul di ñàllu waaw ak ubbeeku nag ak sabablu doomu aadama sañ na ko def mhm. mooy fatu waaye nag kaaraange moom dafa war doomu aadama ndax cat dafa am lu munut te kaaraange ku ko bëgg faaw nga nangoo sangu nangoo takk nangoo naan nangoo diw tey saraxe mhm. pour nga am foo nga def yi nga wax ndax nit paren mhm. saa day xëy yor entreprise bu mag di mhm. doxal mhm. doxal un na weer moom doxaloon premier janvier deux mille dix balaa deux mille dix neuf vingt mu ñàkk la mu amoon loolu na cat da koy def cat day semmel nit ba dootul yor dara day semmel nit sax maanaam ba ba mu yor oto wàcc ko warum buto def soog wala wala wala wala leen gàllankoor ko moo tax cat lu jara bàyyi xel la ci réew mi fii ñu toll waaw rawatina cat yi bare bari ñu bari dañuy takk soxna te duñ xam rawxaan jigéen bi te nit nga ko ñaanal maanaam maanaam xam raw xaanam daa gën lu ne boo ko seetee ba xam raw xaanam xam saraxu tabi xam mm-hmm. mun koo jàpp di nga ko mën a dimbali ci lu baree bari mm-hmm. waaw moo tax may may may soññat ndaw ñi mm-hmm. ñu gën a lu ci kaaraange ak mustuwaay am na ci yoo xam danaa ko may falla xeeg naa si na ko ñëpp def seen ordonnance amul lu ko gën ci kaaraange falla xeeg naa si bu sell boo xëyee def ko booy tëdd def ko billaahi lu jóge wut ci yàlla mënul lu ci yow dara. mu mel ne yu bëri soo ci dugg di nga fàggandiku lii di kaaraange balaa ngaa dugg ci lu mel ni bayre ndax bayre soo ko wutee euh, coow li dina bëri comme ni ñu koy waxee mais bayre bu ànd ak koom-koom moo tax ñuy wax ana euh, euh, Cheikh Khadim ban la ciy def. Ah, bayra daa bëri façon. Mhm. waaye bayra moom su sañoon daanaka. Mhm. ku nekk ndaw moytu ku moo gën. ndax bayra bàyyire daanaka moom la. bayre bàyyire waaw. ndax bayra daa bëri façon. Mhm. am na ñoo xamante ne bayra bi ñu yor judduwaale la suñ borom ma ko def ci ñoom. Mhm. am na bayra boo xam takk tàkk mboob lay doon mën ngaa takk deux mois six mois nga fay wala yonsu bi laa yal nañu yàlla musal mooy sungu fii rek nga xam tam dañ la koy jox. Mhm. boole ko lañ koy boole jox la ko maanaam mun laa tëjji deux mois maanaam nit ñi di la tudd nga xëy doo yor dara. li gën a bon nag mooy ñu lay tudd di la tudd bu sori te yoro yoroo kër yoroo oto yoroo dara mënoo taxawal dara. am néeg sax maanaam pour nga fay ko lu jafe la ci yow kon bayre yi ñi ciy ñaanlu nañ xoolal li ñaanlu musluwaay daal lay digal képp koo xamante ne yaa ngi di ma seetaan ci site internet bii mhm. nga gën a juguwaay ci musluwaay mhm. gone day am kaaraange mag day am kaaraange mhm. mucc mooy lu ne nañ ko ñaan mucc li ma wax daal léegi mooy damay defar bayre da waaye bala ma koo defar danaa la xool say mbir xool say mbir ba attan nga li ma lay defal wala attanoo ko te dinaa la defal musluwaay gu wér a wér a ma laa jox kaaraange ndax man musluwaay laa gën a farata mhm. ndax nit bu muccee rek li ci des wërsëg la yàllaa ko sàkk ci nit day ñëw far fos mhm. musluwaay bi ngay liggéey ndax ku jóg rek mën na koo am ndaw mag wala dafa am ci ay âge lay dox musluwaay ñëpp ko mën a am paa nag am na ñoo xamante ne jullit lañ am nañu du jullit jul ku du jullit nag kenn du ko jox alxuraan am nay sarax yoo ko mën a tegtal am nay sunguf yoo ko mën a defal am nay jat yoo xamante ne mhm. beneen xam-xam lay doon zulmaani yu lay doon boo xamante ne fa koy jaare ngeen mën koo defal kaaraange gu wér mhm. waaye du paa ku jug la ko nañu alxuraanu ki ñu koy jox kan la kii lan la yeyoo waaw ah, pare saa yi nga nekk nit sellu loolu mhm. maanaam di dox di dox keneen nekk sa wet maanaam takk lool saa su xëy xaalis kooku yàlla du ko jëppi bu yàggee da nga ko ñëwee fekk na kooku yàlla du ko jëppi waaw di mooy yàlla saa su xëyee mooy yàlla am oto bu bees am kër gu bees mhm. am soxna su bees mhm. fekk na yàlla du ko jëpp waaye ak sell moom ku ko saxoo mhm. maanaam maanaam maanaam fonk fiddatu astaxfirullah waaw astaxfirullah alxaliyul asim di ko wér di soixante-dix fois yàlla mën na laa musal ci cat ci làmmeñ ci bët lépp luy lore yàlla mën na ca musal te astaxfirullah li muy def ci nit mooy dalay raxas ba nga set mu duy la ba nga fees jàll te munoo am am mukk te setoo tarkal kon góor góorgóorluwaat ci jaamu yàlla ndaw ñi tarkal am ah, jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Xaadim borom jinne yi dañ daam feneen fu ñuy ñëw desandi ba léegi jamono ji léegi nag ku jóg fi mu ne nii bëgg nga ci looy dugg rek mu taw fiixee mais problème yi dañoo bëri rawatina ñi nga xam ne ñu ngi fii ci biir réew mi dañuy bëgg a dem voyage yi dem bitim réew mais dañuy tàggatem bi am jafe-jafe kayit tarkal la ñenn ñu ngi ci buntu di fëgg ay concours muy dëgër di déposer pour am liggéey doon lu jafe ana ñooñ lan nga leen di wax man ba ànd ak dogal yàlla mm-hmm. ku a génne moo xam lu mën a am mm-hmm. maanaam boo ñëwee fii mm-hmm. incha bu dee daam foo déposé yëpp nga ma ko ma ñaan la ci ba ànd ak yàlla dañ la jël waxaat ko gars ko dama fii CV incha jox ma ko ma ko bu ànd ak dogal yàlla ci ñaanalee bu ànd ak dogal yàlla laax de dañ la jël danga soxla jërëjëf acca dañuy dugg ci beneen ponk mu di dëkk bi léegi xam nga ne féewale bi dee bëri rawatina mën naa ne biir famille ñi nga xam ne ñoo bokk même deret bi euh, ñooñ soo leen doon bëgg a defal liggéey yenn yi naan noob rawatina ñaar ñuy sëy am jafe-jafe ba noob nga leen di defal. ah noob moom yor naa ci fas goo xamante ne ñeent fan laa koy def. fas nga wax bu dee la fukki fan ak juróom. Mhm. bu dee nit ku ñuul la ñeenti fan. lu tax wuutante boobu fukki fan ak juróom hmm? ñeenti fan. waaw ku ci nekk ak rawxaan nasaraan rawxaan bi mu àndal day rax seytaane. xanaa tubaab bi dañoo naqaree nopp. day rax seytaane daa am sarax yoo xam te ne da nga koy def ba nopp bala nga def loolu waaw boo xamee seen tur rek man nopp koo ci def jëru tur yaay ku ma ci xam turam mm. ak tur gee tur rawxaane rek laa soxla bu ma jëlee seen tur xam tur rawxaane incha allah rabbi ci ñett fan ma fas ko bu ànd dogal yàlla waaw laa bu ànd rek yàlla jërëjëf ci kaw yàlla nag ànd ci mm-hmm. acca damay des foofu ba léegi ñëw ci jigéen ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe du ma jigéen ñi am jafe-jafe seen néegi sëy yi mën nañoo am problème pour euh, sëy bi du neex euh, mën naa ne euh, pour ñoom doom sax problème lay doon am na ñoo xam mën nañoo am benn yoon mais pour ñu amaan doom it xaw a jafe. ana ñooñ lan nga leen di defal loolu rab da koy def rab da koy def maanaam seytaane da koy def maanaam ay gàllankoor tamit yoo xam ne ay def-def da koy def. Hmm. man gis naa nit ku ñëw fii sëy fukki at mënut a am doom bi mu ñëwee ci man yàlla sax borom ko ba am loolu nag yor nañ ci secret yoo xam te ne ci alxuraan la ne si sóoratul xul hoyya mhm. maanaam ku ci ñëw mhm. la muy àndal dañ ko def jox la ko nga jëfandikoo bu àndee dogal yàlla mhm. bu yàlla tuddee nag laax yaag sa borom kër ngeen war a am doom ngeen ko am na loo xam nag dogalub yàlla la munuñ ci dara dañ koy wax fii waaye bu ñëwee bon xool ko ba xam ne mën nañ ci dara buñ ci sóoboo nañ ko def incha allah ñi sëy jafe nag mu di góor ñu ak jigéen ñi waaw am nañ ci sangat spécial ku ci ñëw dañ la koy jox spécial sangat spécial boo xam te ne ku ku sëy jafe wala borom kër jafe la. Mm-hmm. boo ànd ak dogal yàlla boo ñëwee am nañ sangatu juróom-ñaari fan bu ñu la ko joxee boo ko jëfandikoo am borom kër. d'accord waaw boo boo ko am jabar waaye ñi ëpp nag rab moo leen koy rab dafa bëri ñum gàllankoor ci ci société bi waaw dafa bëri ñii day tëdd di mas bi feewu. Mm-hmm. ñii day maanaam tëdd gis maanaam jigéen di ànd ak ñoom ñu xàmmee kanam ko xam te ne leen jox wala seen xarit loolu yëpp rek mbiru rab la. d'accord day sax ko am jëkkër wala mu am jabar bu nopp loolu di ko feeñu maam bu gisee fóot day yàqu du mën a am doom <laughs> bari nañu mi daal bari nay milliardaires yi ngay dégg fi ñoo xam te ne bi ñu juddoo ba léegi mos ñu am doom waaw loolu nag maanaam ay ay gàllankoor lenn nag dogalu yàlla la tarkal jërëjëf jërëjëf sëñ Xaadim comme que sëñ Xaadim moom lañuy ñuy dàkkantalee borom jinne yi dinaa sawar am lu ma la laaj mu di lan rab bi nga xam ne dugg nañ ci boo ak léegi di ciy waxtaane moo ko jinne lan moo leen wutale waaye jinne moom day loo xamante ne suñ borom a ko sàkk amaa xalaat sa jinne wal leen si yàlla da leen sàkk képp pour ko waaye rab moom day doon loo xamante ne maam am na ñoo xamante ne da leen judduwaale am na ñoo xamante topp ñi topp nag moo ëpp ñii seeni maam ñoo doon ñoo joroon ay xamb yor ay tuur mu topp leen mhm. ñi day génn dem fenn rab bi dugg leen mhm. waaw waaye ñi day for ndom ba takk ko wala ñu jël jaara jàmbur takk ko wala maam daal xam naa dox timis jom mu dugg leen wala ñu tëdd fenn foo xamante ne amuñu kaaraange moo tax kaaraange dafa jarlu lu ne kaaraange dafa jar lu ne waaw mm. jërëjëf aja ah. euh, damay ñëw balaa ma tëj sama émission mu di ndaw ñi nga xam ne jamono ji léegi li ci ëpp mm. tële nañ ah. dara mënatuñ ko mm. mag ñi sax dooy xool lañ daan dund ci at te doo dégg yenn yi ci ñoom mu di feebaru tële bi néew kàttan euh, doo ko dégg jamono ji te gis nga ndaw ñi léegi presque ku la ci gën a doon xale moo la ci gën a mën a néew kàttan loo moom kay yaram loolu moom daanaka saa suñu xëy nañ am cinquante personnes yoo xam ne danañ ngir waaye nag lekk gu bon gi ñuy lekk la mhm. bokk na ci beneen bi tamit doom xale amoo dix-neuf ans di jël ay garab di jël ay pompe nañ ko moytu deret xale mhm. maanaam yenn yi dañ ko defee seen siddi day fat mhm. lenn li rab da koy def ci wàllum kàttan lenn li ndoxum siti da koy def waaye man du ma faj ndoxum siti du ma faj du ma faj korobat du ma faj asma man dama am yu may def am yu ma du def yi ma mënta def dama naan leen mënuma ko du ma faj jabet Mm-hmm. waaye nag lu mel ni kattan moom mm-hmm. lu mel ni kattan moom mm-hmm. ku yàlla saa borom dogal nga ñëw fii wax ba ànd ak dogal yàlla da nga taqali ko ñoo ko bokk déggandoo ko ku ci am uh, yenn tawat yi rek lu ci bokk ni feebar boobu ma cité léegi mu di ku néew kàttan seetal kii di sëñ uh, xaadim borom jinne yi mu am lu mu jëflanteeg yow mais dama naan balaa maa tëj rek du fekkee ne am na loo xam bëggoon naa la koo laaj nga bëggoon ko laaj biir nit ñi nga xam ne la uh, ci site bi sax nga am loo leen baaxee lu ma la waroon a laaj te laaju ma la ko nga baaxee leen ko comme ñaan. mooy <laughs> <laughs> Fallaxi. ak naas yi na jullit yëpp def seen ordonnance tarka amul lu ko gën ci nit fatiya falaax ak naas bu ci nekk ànd ak bisimilah rahmaani rahim boo xëyee xëyale ko booy boy booy booy boy booy booy tëddaale ko beneen bi mooy mooy mooy mooy yoon yi nga xam te léegi accident yi dafa bari mhm. ndaw balaa jóge ci yoon wala mag day ki day day day day day day nit du jékki-jékki rek jóg yàlla nag mooy def ak dee moom fu mu ko moom mhm. ku moom mënta tee nga jot ci waaw xaali bi ko kull moom day yegg si. Mhm. waaw waaw. bàyyi saay koo xamante ne yaa ngi tukkeeti. Mhm. da nga naan bisimilah rahmaani rahiim baa fi ma jëm siin fi ma jóge doxal naa miim ci diggante bi. Mhm. waaw ku ko def yàlla saa borom mën na laa musal ci oto yeeg lépp rek. jërëjëf waaw wala nga tàmbalee bisimilah rahmaani rahiim. tarkaala baax na jërëjëf sëñ Xaadim borom jinne yi lan ngay tàggatoo ba jëmee jamono incha allah. di santaat Serigne Touba wér. xam ne man moom rek laa gëm. moom rek laa bëgg moom rek laa wóolu. micro laa yaakaar. Mm, micro mm. maa ngi koy sant bu baax a baax Serigne Touba ci teraanga gi ma defal. maa ngi sant di ko seeral murit yëpp ak jullit yëpp di leen wax ne maa ngi sant maa ngi sant maa ngi sant képp koo xamante ne am nga ajo boo ko déggee bala ngaa ñëw fi yàlla na faju képp ku jóg di dem ci sëriñ aajo jo nga yóbbu bala ngaa yegg yàlla na faju di wax ne sama mbokk sëriñ si nañ farluwaat ci doomu aadama yi leen yekk seen àll di leen jox réew mi neexul bitim réew neexul nit bu dem liggéey di yenn wala ne ci tool yi di dox ba sonn yëkkati benn vingt mille franc wala cent mille franc wala cinq cent mille franc wasul ak ci moom yàlla sa borom sutural la alxuraan jàng fi jàngat njàngale mag ñàng fi ko gëstuwaat toogaat dëggalaat suñu bopp waaw xam ne yii fi moom ku ko jàppee lu yomb ah la sëñ bi laa waxoon de naxe da moom ñetti fan la bis bi nga ko defee ak bis bi nga koy ak bis bi muy feeñ ak bis bi ko nit ñi di xam day jeex tàkk te nag tàkk tàkk mbopp dafa bon de na ko nit ñi moytu. te góor góorluwaat mm-hmm. sama bokk sëriñ laa yéen laay waxal. waaw toog ci internet bi wax lii la neex te bu la ñu joxe xaalisam doo ko jot dootu ko déggati booy mujj sax danga koy bloqué nañ moytu yooyu àq la àq yu àq àq yenn àq ya loo xam ne ñu ngi koy xeeb te jër ta xeeb. Mm-hmm. jër ta xeeb de nañ ci góorgóorluwaat. jërëjëf